salaamaaleykum soppey Ahmed Bachir Kounta yi salaamaaleykum émission bi ñu génn moom la ñu waxtaane euh, bi ñu dellusee ci bis bi nga xamee ni ci la génn àddina le 17 janvier 2019 fu mu dellu rek suñu xel dana dem ci Ahmed Bachir moom moo toll noonu moo liggéey lu tax bu dëddoo di gën a dund ci xool yi parce que ku nekk ci ñaari néeg yi gën a rëy ci réew mi te ma gëm sax ni mooy ñaari néeg yi gën a rëy dans le monde di néegu diine ak néegu sport euh, sa way li liggéey du réer ba tax na Bachir bu dëddoo mën nañ ci toog di ci waxtaan di ci waxtaan keroog maa ngi naan ci émission bi mënoon naa fanaan ci Ahmed Bachir Kounta parce que euh, dama euh, gimmee ci keppaaram mu nekkoon ku ñu sopp ku ñu sopp ku ñu bëggoon niru ku yiw Ahmed Bachir Kounta maa ngi rappelé naan léeg xale yi ni ma lay jaw yaa tax ma nekk journaliste man leen man Ahmed Bachir Kounta moo tax ma nekk journaliste parce que dama gis li mu daan def sopp ko ba bëgg ko niru ba finalement ñu daje maak moom ci profession bi kon moom laa wax ni journalisme mu bokk boolewuñu ndar ga ñu dëkk moo ñu boole kon ñu génn ci numéro un bi numéro deux bi nag ma indi koo xamee ni nijaay la ci Ahmed Bachir Kounta Ahmed Bachir ak a mag waaye nijaay ma xam nga loolu dana am man mii am naa nijaay joo xam ni maa mag dafa gàtt fan euh, maa mag dafa gàtt fan di sama nijaay di rakk ci sama yaay kon sama nijaay te kat maa mag moom mii Bachir Kounta euh, nijaay la moom mooy nijaay ci bashir Kounta Bachir ak mag mu nekkoon nag koo xamee ni musul jóge moom it ci wetu Ahmed Bachir Kounta ndokk yàlla ba nga xamee ni dañu bokk benn kër ca Ndar këru famille booba këru famille kër gi ñëpp a cee nekk maam ba sët sëtaat ñëpp a ciy nekk ca Sindone ca rue du Quai Clédor muy sama xarit Assane Fall Assane ma bàyyi la nga nuyoo parce que tey yow it euh, yaa ngi yëngu ci diine yaa ngi yëngu ci diine ba nekk président daayira mm. defe naa danaa yegg si ci daayira bi nga xamee ni tey jii yaay yaay président bi Euh, Ahmed Bachir moo la fi indi parce que keroog man maa ko waxtaanee parce que man kenn mënoon naa toog ci Bachir di waxtaan ñetti fan keroog man maa ko waxtaanee alors ba bii ma ni yow yaa ko gënoon jege non seulement da ngeen bokkoon kër mais yëg naa sax ni yaa doon secrétaire am lu mu waxtaan kenn yow la koy waxtaanal ndax da nga teeloon set loxo yow it diine bi la teel gane si moo tax Bachir. tafoon la ci boppam xam naa ka xamaay bu nga xamee ni ku setul ku sellul du ànd ak yow Ahmed Bachir Assane Fall ma bàyyi la nga nuyu njaboot gi ñu soobu ci euh, euh, sa jarbaat bi nga xamee ni tey jii moo la fi indi Ahmed Bachir Kounta euh, jërëjëf Ablaye Fall jërëjëf kontaan naa bu baax a baax a baax jërëjëf Fall bi ma woowee tey jii di laaj ci mbirum Bachirou Kounta dinaa ci sawar trop mhm. ndax euh, kër gi ñu dëkk ci Sindoni. waaw man dama judd rek fekk leen fa. est-ce ca kër googu euh, sama yaay bu ñuy wax kandi jaxate mhm. njabootam yëpp fa la ñu juddoo. Mhm. Euh, yaayu Basiru bu ñuy wax soxna Fat Diagne. Mhm. yaram wi yëpp diine la. est-ce que yaayu Bachir. yaram wi yëpp diine la. est-ce que yaram wi yëpp alxuraan la. est-ce que dem na ba nga xam ni passé na quatre-vingt-dix ans. yaayam waaw. du yeewu muk te du tëye kaamir. soxna Fat Diagne. soxna Fat Diagne. est-ce que. du yeewu mukk te du amee kaamir. est nekk soxna soo xam ni exemple la ci yeneen jigéen ñi. est-ce que. surtout nag ci jamono boobu. Mm-hmm. nekk ku laabiir. est-ce xam nga su ma buñ wax ni Basiru dafa baax. Mm. ma ni su baaxul ñu laaj ko. <laughs> nga ndax dañu wax ni. Ah. ku juddoo ci tàgg te naawuloo. jaaxal say mbokk. wax nga dëgg. Basiru. Ah. lépp loo xam ni yaayam amoon na ko. Ah. ci mbaax. Mhm. ci tabe. Mhm. ci ci ci bëgg nit ci am diine. Mhm. dafa mel ne lu ñu ko transféré dégg nga ci biir Basiru Kunta. wax nga dëgg. Basiru ma juddu ñu nekk ci kër gi. nekk ci kër gi nekk ci kër gi ba nga xam ni léegi dem naa bay am ay huit ans dix ans. bi ma amee exactement dix ans. waaw Bassirou Konté daf may tey sama loxo. fu mu mënti dem ci biir ndar googu. maa ngi ci gannaaw yéenay ànd. ñoonay ànd yëre bu mu sol tey. Ah. bu ëllëgee maa koy sol. ndeysaan. dafa daan jënd yëre simis ak tuba yi sol ka ñaari fan du ko fóotlu. du fóotlu noonu noonu la ma koy joxe bu ko solee ñaari ñaar ñaari fan doy na ci doy na ci yaa ñëw rek mu ne Assane yaa ko moom est-ce que euh, mu xamal man lu bari moom moom Basiru uh-huh. euh, ñu nekk nekk boo xam ni euh, bu rafet amoon lu ëpp mm-hmm. dinaa wax ni nekkin bu toll noonu ëppee eh la ñu amoon est-ce que du sama yaay du samay frère du ñoom Alassane du kenn koo xam ni fam na bëtam tekk ci man sama diggante ak Bassirou Kounta amul amul ana Assane ma nga ak Bass alhamdulilah waaw dafa nekkoon koo xam ni li mu jële ci yaay ji daf ko ko tasaare ci biir ndar jële ndar tasaare ko ci biir Sénégal buñ dee wax baax waaw dama ni bu yàlla wàccee woon beneen muu bu gën bu ëpp baax. waaw loolu lañ koy tappal. est-ce que lu gën baax. waaw waaw. wante du ñuy wax ni baax amul lu ko gën a kawe. amul dara <laughs> déedéet. mu ngoog. wax nga dëgg ma ni man. Ah. bu yàlla indi woon beneen muu. Uh-huh. bu bu gën baax. waaw kon boobu laa koy tappal. jërëjëf Fall jërëjëf Fall kon tey jii gën naa xam Ahmed Bachir Kounta te moom nag eh, gis nga de Bachir Kounta boole moom it. Mm-hmm. dañu xale la loo bokk benn passion. Euh, ñu ñaar ñëpp di bëggoon football fi ngeen koy gis nii c'était un brillant gardien de but c'était un brillant gardien de but loolu nag ñu ngi ko doonee ci magam parce que son grand frère fut le gardien de but de l'espoir de Saint-Louis bii da ngay dégg Lamine Koura Fall qui fut gardien de but de l'espoir de Saint-Louis et du Sénégal les années 60 Lamine Koura moo def jeu d'Abidjan 61 def jeu d'Abidjan 63 magam as Alassane Kani Fall mi ngeen janool nii Alassane Kani moo jox camp yi Lamine Koura moom Assane Fall bëggee góol ci as Alassane Kani euh, bi ngeen nekkee ci biir kër gi sa grand frère di gardien titulaire u Espoir de Saint-Louis Bachir Kounta la bëggee football waaw fa la bëggee football parce que moom tam Alassane Alassane Kani Fall am na rôle bu bu bu mu ci Bassirou Kouta si mën nañu wax ni euh, Alassane Fall bokk na ci melekaanu Bassirou Kouta oui oui ci jub ci wax dëgg mm-hmm. parce que Bassirou nag amul ku fees bëtam mm-hmm. pour dëgg rek waaw amul ku fees bëtam si si ndagam Senghor a taxaw mu taxaw doxañ ko wax ko ni mu ko bëgg a wax asama keneen wax nga dëgg daf ko daf ko jàppe woon jàppaat boo xam ni mu ko gënaloon sax ay démb ñuy diisoo nag ci ci lu bëri. waaw Alassane. ak basiru Kounta. waaw dañ daan diisoo ci bari bëri Bassirou du def dara yaa xam fii la walla ndar la fala wala feneen la du def dara loo xam ni du àgg ba ci Alassane. Alassane Fall wax ko ah nijaay man kat lii ak lii ak lii ak li Alassane ni ko waa baax na wala mun mukk bu def loolu defal lii. oui oui Bassirou Kounta digganteem ak Euh, dafa nekkoon loo xam ni dañu defoon ni ay magaraka lañu. te fekk na Alassane nijaayam nijaayam la. te fekk na Alassane nijaayam la. Mhm. et Bassirou Kounta it. et pourtant ko mag trop parce que euh, Espoir de Saint-Louis bi muy final Coupe d'AOF les années cinquante. oui les années cinquante. cinquante waaw booba Bassirou Kounta euh, xale la. xale la bien sûr. Ah, parce que man seize à peu près seize ans. seize ans oui parce que temps boobu man cinquante boobu ngay wax. boo fekk na maa ngi ci sama 10 ans. voilà fekk na maa ngi sama 10 ans. voilà alors euh, Bassirou Konté nag te njabootu euh, euh, famille yu Alassane téye ko comme du fekkoon ni eh bien fayu ma wax nga dëgg. que tu vois ko bu dëgg. kon Bachir a ngi noonu ci biir kër gi mu nekk gardien de but titulaire u Espoir de saint yi moo fa nekkoon Alassane Kane moom laa leen wan nii tout à l'heure di nag Espoir de Saint-Louis Espoir de saint yi laa leen di wan. Euh, yéen a ngay dégg Sarde Guilé mhm. mu ngi nii euh, jonkan à nekk ci wetu Moustapha Diallo Xapo ak moo Mody Diallo Mody Diallo nag moom ba Kounta ko bëggaloon boppam ñi taxaw Baara Tonkan mhm. sàmba Diouf mhm. Moussa Diallo yéen Moussa Diallo bi taxaw yéen waa waa TFM Moussa Diallo bi moo di magu papa yi Dégane Chimère Diallo Dégane Chimère Moussa bi ak papa yi dëggan Kader ñoo bokk ndey ak baay dëggan mi woon ci kër gi tey nelaw tey jii ci Touba. Euh, ak Maguette kamara ñu ko daan wax Walter. Euh, Maguette kamara bii mook Alassane Kani mhm. ñoo doon ñaari gardien de but mhm. espoir de Saint-Louis. bu kii góolee tey kii góol ëllëg bu kii góolee tey kii góol ëllëg mhm. alors ki taxaw nii nag di euh, Birataw beneen photo espoir de Saint-Louis gi nii fii Sardigile moo sol nii mbaxane mi nekk ci wetu Moustapha Diallo Moustapha Diallo coup d'acier lañ ko daan wax. dafa mënoon dóor bañ ko daan coup d'acier. zone zone 30 mètres yi du mën ci gardien de but yëpp. Baara Tonke nekkaat nii. ak Ousmane Keita. mi def les Jeux de l'amitié déjà en 1961 à Abidjan Mody Diallo ngi nii ak Gaston Sarr. Gaston Sarr bi nekk na fi professionnel à Monaco. les années 50 euh, ñi jonkan Bouba Maxa. Mm-hmm. moo sol nii Mbaxade. Bouba Bakha bi espoir de Saint-Louis di gagner la coupe du Sénégal la première coupe du Sénégal en en 61 mhm. il avait à peu près 36 à 37 ans waaw mhm. waaw 36 ils sont deux mhm. Euh, à avoir gagné la Coupe du Sénégal âgé ah, Bouba Bakha 37 ans ak Aziz ak Aziz 40 ans bi Linguère di gagné Coupe du Sénégal en 71 voilà euh, et au même poste parce que Aziz moo jël place su Bouba Bakha Bouba Bakha ngi nii ndeysaan ci émission Lamine Diack laa xamee ni tudde na Lamine Diack doom moom Bouba Maxa moo sol nii mbaxane Seck Tuxuñ très grand milieu terrain mm. Camara Magat moo toog nii amee coupe bi mm. euh, teg ci kaw ballon bi ak Bekay Gay Bekay Gay mii ngeen janool moo di papay euh, Badou Gay euh, baara baar Bira Taw mm-hmm. moo sol nii moom it mbaxane ba tey ci espoir de Saint-Louis bii nag mooy bi gagné coupe du Sénégal kii moo di bi gagné coupe du Sénégal bi moo wax léegi am 1961 ah. debout de gauche à droite seex yi Mm-hmm. jumeaux yi. Mm-hmm. Ujulak yi mm-hmm. ak Rebeter ñoo di ñii ñaar. Ablaye Sarr ay seex lañu Amadou Sarr voilà naka Sarr. Ablaye Sarr Ablaye Sarr ak Amadou Sarr gis nga de ñoom euh, pseudonyme bi ñu jël. Ujulak ak dafa réeral sax seen tur. ndar boo fa ne kuy Amadou Sarr kenn du la wuyu. kuy kuy Ablaye Sarr kenn du la wuyu. da nga naan Ujulak wala Rebeter. ndey moo nekk nii ndeysaan Insa Diagne nekk nii moom it joué na équipe nationale euh, bu ñoom ma wadd wadd ak As Ndiaye. Ass Ndiaye mi ngi nii nekkoon capitaine Espoir de Saint-Louis mhm. Mhm. ci coupe bi mhm. ak ñi jonkan Tandian moo sol nii lunettes yi lunettes moo doon solamoon ah aka wexoon Tandian aka wexoon Tandian ku dominer Espoir de Saint-Louis moom moo lay moo lay rey ku dominer Espoir ku dominer équipe moo lay parce que Tandian mënoon na def euh, mënoon na aligner ci cent mètres effectivement mënoon na aligner ci cent mètres Tandian boobu waaw peut-être ce sont ce sont ce sont les intimes ñu koy wax loolu mais waa Espoir naka caara caara waaw ak daggit <laughs> ah, waaw daggit bi xamoon na voilà mu ngoog daggit bi xamoon na ko ndax li mu tuuti mais caara xaw ma ko waaw euh, kon kon kon dëkkoon loodo nekk ah. tailleur voilà kon baduka dana jël boobu caara boo dajee mm-hmm. tànjaa nga ne ko luy mm-hmm. caara euh, Aziz Ndiaye mi ngi nii di rakk ci As mm-hmm. Lamine Koura Fall moo nekk nii euh, Alioune Diagne nekk nii ak euh, Bouba Maxa bi espoir de Saint-Louis di gagné coupe bi. Mhm. à l'âge de de de 37 ans. mais Assane dama remarqué ni. Mhm. Bachir Kounta. Mhm. espoir moo di équipe bu xolam. xolam bu baax sax. depuis nijaayam. Alassane Kane parce que nag ñoo bokk kër gi. ñoo bokk yéen a bokk kër gi waaw <laughs> mais dafa bëggoon Saint-Louisien ndax ay xaritam dañu nekk Saint-Louisien. exactement exactement exactement am na ci am na ci am na ci am na benn bés nga xam ne foofu ndar. comme comme yëpp. bu ñu dee añ bu ñu dee añ rek raxasu rek baraada bi tegu. waaw dégg nga ñu comme ni ñuy wax les trois mu waaw dégg te ñu ngi ko daan defee ci néegu Alassane. néegu Alassane Kadi. waaw Alassane Kadi Fall. mu ngoog waaw. alors bu ko euh, euh, Alassane xoolee ba si yàgg ne ko waaw yow yow fii nga bokk wala fa la nga bokk. <laughs> ndeysaan. mu ne ko ci yëpp ñaar laa bokk. gis nga moo tax gis nga fusion bi. Mm-hmm. bi Espoir ak Saint-Louis daje def Linguère. Mhm. j'ai pensé à lui. parce que dama ni Bachir Kounta deux abos. ñoo daje ñoo daje. <laughs> waaw dafa mel ne que euh, ku amoon ñaari kër. ñaar léegi ñu dajale ñaari kër def ko benn. kër exactement. waaw waaw moo tax vraiment moom lañ defal fusion bi. dafa bokk Espoir ci xol bëgg Saint-Louisienne d'ailleurs Saint-Louisienne bi mu bëggoon ñaari génération. bu njëkk baa ngi nii euh, euh, Saint-Louisienne 1948 bi. Mhm. ak Kalfa ak Ablaye Diagne moom la ñuy tuddee stade ba ca boppu Ndar ci wetu ci wetu police ba janook rajo Saint-Louis mhm. euh, Mambay Cissé euh, Doudou Diouf Tom mhm. euh, Doudou Soumaré Doudou Soumaré bi moo di papay par Soumaré mhm. bu Linguère woon ci deuxième rang bi Doudou Sawo Abdoulaye Sey Moro Abdoulaye Sey Moro bi ngeen janool moo di papay Karim Sey ak Djibi Dia troisième rang bi Kader Ndiaye ah Kader Ndiaye Euh, euh, Moussa jàlloo di Moussa Anglais. Anglais bu baax sax. waaw Moussa Diallo ñu koy wax Moussa Anglais moo doon gardien de but. Euh, ak Djibi Gueye assurance kii mu kii moo di Saint-Louisienne 1948 bi nga xamee ni Bachir Kounta dafa bokk espoir. Mm-hmm. ci ci ci juddu. ba pare bëgg Saint-Louisienne ci ah, xool. Mm-hmm. deuxième génération baa ngi nii Waly Ndiaye. Mm-hmm. xam nga Waly. li ko li ko ak Bachir Kounta. Uh-huh. xaritu intime Bachir Kounta rakku Waly ah, di maa Amar Ndiaye ma Amar Ndiaye ñu di ko wax Chayba Chayba voilà moo ko bokk ndey ak baay gis nga gis nga gis nga Chayba boobu ngay ah. wax ak Bachir Kounta ah. moo leen di teqale tëdd tëdd ay seex ñu woon ba pare nag bokk passion Chayba di basket basket Bachir Kounta di secrétaire général ligu bas alors seen jeune bee nekk nii ñoom Waly Ndiaye ñoom David ñoom Toussaint ñoom Sidat Diop teel dem France Euh, ñoom Umar Ndiaye Cheikh Thioune mi ngi nii euh, danaa agsi ci Cheikh Thioune mi nga xam ne ni Bassirou Gouta tuddal le maréchal mhm. ñoom si Sidi Ndiaye Kadjigi Loma Dieye mhm. Ama Diaw ah kii moo di Saint Eugène bi bi Bachir Kounta bëggoon Magay Gaye Magay nag parent la ci Bachir Kounta day waaw Karim Ndiaye ah euh, Momar villan ndeysaan ma ngay nelaw ca Nioro mhm. fa lañ ko denc Alaaji Ñang ñang Fare Penda ah ñoom Lamine jal nekkoon fi maire Liberté 6 Euh, Cheikh Diop l'autre gardien Jules Diop doomam a ngi ci biir kër gi Jules Diop mi doomam a ngi ci biir kër gi ci service financier bu bu euh, bu bu euh, groupe Futur Média Fallou Gueye ah ñu denc ko à Rufisque Cheikh Ndoye ah, ñu ngi nii ak Doudou Diouf doom en chemise carreau mi nga xamee ni moo doon entraîneur wu entraîneur wu Saint-Louisien bi Assane Bachir Kounta uh-huh. diine daf ko daf ko teel dugg mu làqu ji ci football bi. dëgg la diine daf ko teel dugg. Mm. ñun dañ ko gis mu teel nekk ku à part. Ah. par rapport ak ses ay xaritam yi lañ daan dem di baali. Bachir Kounta. jamais kenn musu ko. dafa mel que bu ñu waree baali sax bis boobu duñ ko gis. mukk mukk ndax nag ndax nag ndax nag loolu loolu xarita bi yooyu daan def. waaw euh, yoon may ko woon pour mu def loolu. wax ndax ci fu mu bokk wax nga dëgg Bachirou Kunta Kunta Kunta la waaw Ndiassane Chérif dégg nga mhm. euh, gars yi dañoo wax Ahmed Kunta waaw Ahmed Kunta mhm. mais ci li mu jëlee waaw ci li mu jëlee ci sama mag Alassane mu ni moom du ko wax mukk loolu Mouhamed Bachir Kunta la ko tudd Mouhamed Bachir Kunta euh, dugalaat nga ba seen biir kër mm. Assane xam nga yow da nga nekkoon suñu xarit. waaw bu baax sax ba pare ñu ragaloon seen kër. dëgg gis ngeen lii de sama xaritu xaleel la woon. waaw mais seen kër dañ fa ragaloon. Mhm, lu tax mhm. lu tax bi ñu nekkee xaleel dañu ragaloon dee. xam nga euh, daa daa am parent bu décédé. Mhm. mais daa ko yéex siyaare ji. doo teel dem. di siyaare ji ceeb. wala wala kile wala wala marmiyal. Ah, ah, xaleel yi dañ daan yéex dem. d'ailleurs koñ bu am dëj sax kenn du fa jaar. Abdoulaye Abdoulaye. Ah, xala ma yow ma àggale foofu. benn parenthèse. waaw benn parenthèse rek. gis nga jamono yu ngi wax. Ah. dégg nga. Ah. xale musul dem ci dëj. voilà dañu ragaloon. xam nga am dëj bu ñu fa xam nga lan moo lan moo indi xale yi ebe di fa dem. xam nga bu ñu mësaan am dëj ba indi ko boppu ndar. Hmm. defar ko ba di ko yóbbu. waaw dégg nga xale yi di dem dégg nga. ñu leen di tere. waaw bu leen dem yooyu Moussa. waaw yooyu Moussa Diop. waaw moo dindi lool dégg nga moom dindi lool. est que di wax ne yërmande ngi gën bare ci xaleel ka ci mag. bàyyi leen ci xale yi dem ca ca suul ba mu wax. vieux Moussa Diop. waaw nekkoon imam rajo bu Ndar. gis nga les années cinquante. kooku kooku Ablaye dem nañu ba di ko tooñ di ko tooñ di wax ni bokkul ak nit ñi. Euh, man par ma àgg rek. dafa daan am ci jamono yooyu. waaw ñu daan dem makk waaw dëkk ndar dem màkk mhm. mais bu ñëwee mhm. di wax ajam mhm. day wax ne man daal dama toogal ak euh, sëñ euh, Moussa Diop ca màkk waaw maa gis sëñ Moussa Diop ca màkk waaw te Moussa Diop a nga te gisoo ko mu takk bagaas mukk demul mi ngi ñuy jàngal jóge ndar mi ngi ñuy jàngal alxuraan waaw di jóge ndar am ñu la naan gis nañ ko màkk màkk est-ce que sëñ Moussa Diop jóge dem màkk waaw ñëw ni gis naa sëñ Moussa màkk man jàngal na ma musuma gis bopp sëriñ musu bopp nag mukk musuma gis boppam euh, loolu muy def kaala sëriñ Touba moo nekkoon ci bopp bi ah alors maa ngi benn parenthèse encore foofu waaw bi nga waxee sëriñ Touba ba tey ba tey ñu ngi ci néegu Bachir Bachir Kounta néeg bi Bachir Kounta Guimé mu ngoog waaw alors bi euh, euh, sëñ Moussa bu yoor day jël client am toog ci diggu kër gi waaw fekk jóg nañu fajar ñun taalibe yi càmbar diggu kër gi bee nga xam ne bu la neexee tëdd ci. waaw mu indi mu toog mu amoon nag benn taalibi xaadimu rasul boo xam ne mën na ko jox bakkanam. est que muy ëmm sëñ mooy te dëkk gerte ndar ma. doon liggéeyee intendance intendance militaire. mu ngoog ma sëñ mbéyte maag. ëmm sëñ boobu nag. ajjuma bu nekk. waaw moo daan jóge gerte ndar. ak tabalaam bu ndaw. waaw ñëw di jël si sëñ Moussa di ko yóbbu juma. c'est le premier mouride saint-louisien. mu ngoog ëmm sëñ mbéyte. c'est le ba bés benn ajjuma. comme ni mu daan def mu ñëw ba ci buntu kër gi tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg ba yem tàng daal di dugg ñu sëñ muusa sëñ Moussa ngi tëdd toog ci pilier bi nii mu nuyonteeg moom sëñ Moussa ni ko xoolal ci suuf mu xool ci suuf. Mm-hmm. mun ni ko loo gis mun ko fii day ay tànk laa fi gis ñaari tànk mun ko Xaadimu Rasuul moo toogoon fii doon waxtaan ak man. est-ce que keroog jooju. foofu la Bachir Kounta foofu la Bachir Kounta Guinée foofu la Bachir Guinée xam nga Assane. a ma ñëw yow yow gis nga Assane. xam waaw waaw ataa ma ñëw amoon seen mbos la. Ah. ajuma boobu. Ah. demul juma. est dafa dafa xam noonu nañu koy delloowaat ak gànnaaw ñibbi waaw maa ngi woon ci seen kër gi nga xamee ni. Hmm. da nga fa nekk. Hmm. seen kër ak kër Serigne Moussa Diop benn koñ. benn koñ 100 mètres. ko wallaahi. seen kër ñu ragal fa. Hmm. bu ñu ragal fa. dafa amoon xabru bàmmeel waaw. kër ga dafa am bàmmeel ba léegi ma nga fa ba léegi ma booy romb ci buntu kër gi seen bàmmeel bi ci buntu kër gi ki ñu suul seen biir kër di kër ñoom Bachir Kunta ak yow kookan la kooku euh, li mu ci mën wax du bare parce que ci ay nettali rek laa ko amee euh, sama turandoo mag Alassane Fall ku ñuy wax Alassane Diagne moo ko ko nettali Alassane Fall sama mag nettali ma ko ni gis nga mamaat la ci Basiru Kunta mamaat waaw moom la ñu denc ci biir kër moom la ñu denc foofu ci biir kër booy romb ci buntu kër gi seen xabru mu ngoog parce que nee na dafa ñëw dégg nga war ci gëléem mm-hmm. ñëw a bi ñëw a bi ñëw gëléem bi ñëw a bi boobu mu fekk na kër gi foofu mu nekk ndox la woon mm-hmm. mu ni dafa bëgg samp maam fii mm-hmm. ñu ni ko ah kooku de pour nga mën ko am da ngay dem ci gouverneur euh, euh, ci borom ndar xam nga ñun ndar borom ndar mooy gouverneur mhm. bu mu demee foofu wax ka ka borom ndar daf ko wax ni ko yow xam nga fi ngay wax mu ni ko waaw xam naa ko kay mu ni foofu kenn mënu foo dëkk ndox rek la mu ni ko man kay may ma ma dëkk fa rek mu ni ko soo fu ma nee dëkk dema ndeysaan mu daal di war gëlëm ñëw ba ci kër gi foofu xabru bi fa mu nekk waaw dégg nga waaw gëlëm ba wàcc fa sëfa mu daal di bi gëlëm gi ñëwee ba taxaw foofu ndox mi dem dem parce waa Ndar ajjuma bu na ñuy jëkk ca kër ga dem siyaare ji seen i néew mhm. am na ñoo xam ne bu ñu jogee ca bàmmeel ya mhm. cimetière ba mhm. ci la ñuy ñëw ziar kër ga kër ga ajuma entrée la ak sortie ah. entrée la ak sortie ba ba jant di soo foofu la Bachir Kunta cosaanoo kooku mamaatam la ñuy ziar noonu ci biir euh, ci biir kër dégloo ma ne Assane sëñ Moussa waaw musul dem julli ji juma waaw te jaarul foofu te musul julli korite mësul julli tabaski te dëkkul jaar foofu waaw bala muy ñëw dina fekk man sama yaay waaw bale foofu yëpp defar ko ba mu di rafet pour eau de colonie cuuraay ba yëpp kay mu daal di euh, lal basang est-ce que kër ñoom Bachir Goul waaw yow Assane yow mi nga xam ne yaay nijaayam tey jii Alassane mm-hmm. Kane dem na mm-hmm. Ahmed Bachir dem na mm-hmm. maa ngi soog a xam nag léegi lu tax ci biir diine ngay président daayira daayira bi nga nekk président bi nu mu tudd daayira yaay Zeye daayiru xaadir la waaw daayiru xaadir la yaay seye boobu léeg-léeg ma laajte la ñu ne ma dem nga Nimzaat bon maa ngi fa maa ngi fa maa ngi commencé dem Nimzaat mille neuf cent mi euh, non non waaw mille neuf cent euh, mille neuf cent cinquante sept ngi dem cinquante sept boobu man kay maa xam Assane lu tax nga teel bàyyi football <laughs> non ah. Ah. boobu may dem Nimzaat waaw ah. ba fi may wax ak yow Ablaye waaw ba daaw moo ci mujj. waaw mosuma ko luppee lu dul ci événement Mauritanie Sénégal. jërëjëf <laughs> Assane looy tëjee waxtaan yi. Euh, di sant yàlla bu baax Ablaye. Fall di sant yàlla bu baax. eh bala maa sori. Mhm. Euh, ci bala ngaa tëj waxtaan yi. Mhm. lu indi Timba parce que am na seen UG yu lay xool naan ne kii. tuddul Assane Fall Timba la tudd xam nga mhm. ndar Timba lañ lay wax. ñëpp T-I-M-B-A. luy Timba. xam nga ni mu la ko mën waxee bu fekkee ni ndar population bi cent personnes lañu. Ah. 99 yëpp Timba la ñu xam. Timba Assane Timba. xam nga ko indi. Ah. bi ma jàng école nekk école d'Ivoire booba maa ngi ci maa ngi ci sama 11 ans nekk école primaire. waaw dégg nga mu amoon temps yooyu sama beneen nijaay bu ñoo wax dégg nga Moussa Diagne di nijaay ci Bassirou Kounta ba tey. Mm-hmm. dégg mm-hmm. nekkoon cinéma Rex. waaw maamu ba. ba Bassirou Kounta dégg nga maam Seyni Guèye dégg nga Moussa boobu euh, euh, Moussa Diagne boobu. moo daan joxe dépense ci kër ga. Uh-huh. guddi man maa daan dem di jëlee dépense bi foofu di ko indi. wax nga dëgg alors su ma demee foofu bu ma ko joxee au lieu ma dem mu dugg ci kii bi benn euh, cinéma bi seetaan ñu daan génne film Tarzan. waaw Tarzan dafa amoon. benn xaleel moom itam même âge ko moi. waaw dégg nga ku ñuul dégg nga daan topp moom kooku mu tudd Timba. liet na liet naa Tarzan la woon. mu nga kooku. <laughs> dafa mënoon fay comme jën. ndeysaan <laughs> ma ngoog. man mu ma mënoon fay comme jën. <laughs> fekkee naa loolu fekke naa loolu Assane fi mu nekk nii yaag Babacar Beye euh, euh, xam nga yéen nekkoon ci camp yi. booba oh, temps waaw ah, euh, Babacar Beye da nga dem bàyyi ko poste bi wala moom moo la dàq ci poste bi. Babacar Mbengue ah. li ko indi ci poste bi mooy ah. dañu joué ak sama ak euh, étoile d'or bu noor waaw nga ñu dugal ma fa benn pelanti ki ko doon dóor genre malaakal <laughs> ndax am doole waaw laay buy daw di ñëw ci bal bi da ngay dégg ñu susi di yëngu dëll dëll alors xam nga kanoor kan bi féetee police waaw ah kan bi féetee rajo dafa sës ci mur dégg nga waaw ñoom taxulaay ak ñoom ñëpp dem ci gannaaw miir bi. bal bi dal ci miir bi mbaa non non ñoom ñu toog ci ci miir bi. waaw man ma toog taxaw ci camp yi. waaw maa ngi góor. waaw waa ji jóge fe dal dal dal rek di fu. xaaj fu xaaj mais bal bi di xotti ngelaw li ebe di ñëw. Ah. moo xool ko ne rek sëb. <laughs> waaf da nga waaf. waaf après Babacar Mbaye jël. Ah, non non ma waaf bal bi dal ci miir bi. ñu fa toogoon ñëpp daanu ci suuf kon nga xam ne laay. di kano la kano. alors ñu may nag di ma seyte yaa yaa baqat yaa yaa sisi yaa yaa ma mer daal di góolatuma daal di góolatuma fekk na mercredi ñu nga amoon encore match dégg nga contre Sa Majesté. match boobu la Babacar Beye ñëw. Ah. bi ñu toogee nag ba ñu nuyu saa waay ëllëg la jeudi dégg nga pour pour suñu match ak ak Sa Majesté boobu. Ah. amuñu góol. mais je me rends compte que xajuloo ci benn émission ah <laughs> Assane. waaw a mais foog ñu foog ñu yebale ko fii neex ah. coow la jàpp coow la jàpp coow la jàpp ba. Lom Gay. waaw Lom. Lom Gay. waaw dégg nga daal di mais nañ leen seet Babacar mosul góol. waaw waaw mosul góol. waaw ñun nañ leen seet Babacar. ngeen essayé ko <laughs> waaw ñu. Eh, et c'est c'est pas. <laughs> mu ngi nuyu mu koy wax ko ma koy nuyu Babacar moom it beneen imam la moom it la suñu xarit moom may wax naan bu ñu doon dem ci concours ñu ku yiw mooy nekk ñu mm-hmm. candidat mm-hmm. Assane ji Fall gis nga yow da ngaa ñëw ci benn émission foog ma foog ma obligé euh, euh, tëj ko fi ah, même bu laajee nga dellu si ah euh, kon jërëjëf ah, merci d'être venu par la même occasion Ablaye kontaan nañu ndax Basirou amoon na ñu xam ñoo xam ni ñu ñu ay xarit yoo xam ni ay xarit dëgg-dëgg comme nu ñu wax ay xarit. waaw ay xarit dëgg ku ci mel ne Babacar Bey bi ngay wax. waaw ku ci mel ne Maître Khali. waaw dégg nga ku ci mel ne euh, euh, euh, Badara Diouf. waaw dégg nga sans compter maintenant suñu géwélu ju di Pape Seck. dégg nga daan topp Bassirou partout. moom it demoon na ba ñu wax ni moom mooy garde corps am. dégg nga amul lu ñu deful ñoom ñaar est-ce que tu vois ku ci mel na yow ku ci mel ne eh, eh, eh, sama moroom yi nga xam ne ñoo bokk si ndoone dégg nga ñoom jibi meng temps bi ñuy dund mmh, dégg nga waaw ma ngoog ñooñu ñëpp dégg nga dañu dañu faboon Bassirou Kounta euh, euh, def ko seen lépp mmh. Bassirou Kounta mu mosu leen mosu leen tànqamlu dafa teel barkeelle Ahmed Bachir moo tax ñu toog fii tey di ko waxtaan après première anniversaire am kii nag di nijaayam gën ko féete xaleel mais di euh, nijaayam di rakku Alassane Kani Fall mmh. kon mbokk dem démb jërëjëf ñu ngi ba tey ci numéro bu nga xam ni Bassirou Kounta la mënoon nañ ci def yeneen i numéro parce que Bachirou Kounta dafa ves waxtaane ko ci benn jataay ci ñaar dafa gàtt xanaa ñu tëj ko rek ñàkkuñ ñi bu ñu ci yàlla yóbbuwaatee ci beneen 17 janvier bi nga xam ne ci la ñu génn àddina œuvre am gën di baaw ci askan bi Bachir Kounta Ahmed Bachir Kounta mi waral ñaari numéro yi moo moo di nga xam ni moo fi bàyyi bi Assane Fall Timba merci d'être venu mbokki ñëwoon démb mm-hmm. jërëjëf